jàpp ne euh, secret médical euh, dafa dafa yaatu euh, y a lañ mën a nangu ñu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 donc pourquoi ne pas le permettre au parquet bi nga xam ne c'est le maître des poursuites c'est l'avocat la société donc c'est naturellement moi je trouve que la sortie du procureur est tout à fait est tout à fait légitime et fondée en droit et en naturellement léegi ñu ñëw ci secret médical bi secret médical bi sur le principe génne ko di ko wax ci publiquement d'accord ma ci ni Ousmane Sonko amee droit na am na lu mu yëg ci yaramam dafa njortes ne fële la jógee état bi ko def wala ñu bokk ci état bi am na ci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 dama ne en cas de nécessité d' enquête article 363 du code de procédure sur le principe nee amuñ ko amuñ ci droit mais en cas de nécessité d' dafay tëb. mais bi ñuy def dem di def. perquisition bi mais am na droit am ko. Ah, def ko ci dossier d' mais bi ñuy def perquisition bi. Euh, y' des avocats pénalistes yu ma consulté nee nañu. bu ñu waroon def bi ñu waree def perquisition bi waroon nañ aviser or des médecins. Mhm. Euh, wala et ñu def ko euh, ci seen présence parce que souvent.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 tey tey bu ñu doon tey bu ñu doon perquisitionné tey cabinet avocat avocat yi la wax yooyu noonu perquisitionné avocat procureur day mu ñëw teew bu mënta teew mu yebal kenn mu ñëw juste titre présence fekkee ko cabinet avocat laa parce que un cabinet de avocat est inviolable il mais en cas de war a def fa ay acte d'enquête def le procureur ou le juge d'instruction qui est en charge du dossier dafay am droit aviser na ko dañoo war a def perquisition ci cabinet diw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 ça s'impose même pas au juge c'est de police judiciaire la ko wax la moo tax parfois léeg-léeg nit ñu violé ko magam jëm mu dem police defal ko réquisition na ko demal ci sage-femme bi lu tax sage-femme boo ko defee envoyé yoon joxaat ko police dootoo ko garder police da koy téye mais la police ne commune pas mais da koy téye xam ne li ci nekk defar procédure transmettre à qui de droit le parquet mais am na droit day tëb en cas de nécessité d'enquête la wax point day tëb office d'office mais amul droit lan maintenant di ko mettre sur la place publique loolu je suis pas d'accord merci voilà dernièrement soo ma ko may